mel ne ngi ñëw mi ngi ñëw Ada ngi ñëw borom Ndakaaroo ngi ñëw Ada Ndakaaroo ngi génn waaw waaw xale baa nga loola ay ca Mansour xale ngi noonu Ada ngi noonu Mooro ngi lii maa la ko wax caawaaw cey aada waaw waxoon naa la ko tey la tey ma ngay fuf ndiku xale baa ngay fuf ndiku oh. waaw waaw nee na leen fii maa ko moom dalal na xali supporters yi dalal na xali kii moo daan yéeri deux moo daan farawu jar daan dorma daan ardo daan rawul daan caatu ngewel daan bébé bis mi tàkkusaanam ak jokkel kenn du ko fàtte kii moo daan Tapha wante tàkkusaanam ak Coly Faye fële ca arène nationale loolu histoire ba léegi daf koy fàttali kooku mooy Ada Ndakaaru Ada Fass borom Fass benno maa la ko wax cey li waaw waaw ba dem te supporter ya nanan ko yemal fii nee ko fii baax na nee nañ ko duggaatal hooy aada hooy aada hey aada Fass hey aada waaw waaw da xel dal na yàgg na bilaay du tey sax man Zarko bañ jëlee mbaxaneem la suñu xel dal bañ jëlee mbaxaneem la suñu xel dal loolu tegtal la woon kon non du tegtal la mais bañ ko jëlee rek la suñu xel dal mais noo gisee mbër ndam si kàttanu yàlla sunu borom di ko ñaan yàlla sunu borom mu may ñu ko. na leen sensibiliser si non à la violence. waaw non à la violence dañuy woo ñëpp ndax ñun sunu mbër noble la champion la te doxul si daray ñàkk fay la te doxul daray violence di woo képp kuy ndamoo Ada Fass na nga sant ba si wane sa mbër ñu jàpp saat ko bu bëree ñu dóor ko mu daanu su xeexee ñu dóor ko mu daanu bu bëree ñu yëkkati ba si ko suuf. waaw Mansour. beneen xale beeg jan Kokoy borom jàng borom lan lan lan moo waral jooy ndeysaan Mansour xale baa ngi jooy yaram oh, daw yaram daw na dafa fort. maa la ko wax nga xamante ne bii yéen ngi ñuy topp ci les ak Leewtoo TV ñu ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm bu baax a baax tey nag mooy le 15 janvier olof Ndiaye nee na loo bañ mu yegg si bu ko jàppal bis bis bi ñu doon xaar yegg si na le 15 janvier diggante Zarko ak Ada Fass xale yaa nga noona gis nga ak seeni blouson ñu bind ca ultra ca gannaaw def Ada ca kanam. boo ñëwee fii Mansour sama côté droite ma nga noona gis nga maa ngay booy plateau ak xale nga xamante ne ñoom ñëpp ña nga sol seen ay blouson ay ca ñu jege plateau champion ñu ngi lay ziar. mais ñu la lay fay. baga bagage. sant Serigne Touba bu wér bi la. yaa ngi am tawfeex. waaye ajana yeewu reetaan lu am si sant ko yàlla. mais lan moo waral yeewu reetaan. waaw mais xam nga yeewu rek reetaan gis. loolu li mu ko li xaama wëcc ko ah, lee. dafa lu muy junj quoi. waaw loolay Ndakaaru Ndiaye jël Diop lëg Daaru Mbaye mu ngi suñu ginnaaw kon ragaluñ dara ragaluñ fuñ Diop. yéen ay ñan. ñun ñooy aada Ndakaaru nekkatul aada Fass bàyyi sëñ Bamba. di ko naan aada Ndakaaru waaw mais noonu lay demee di ko naan noo tengo cembo parabalaar rek noo xamalaar mucco parke yo boy ak a narte bàyyi sëñ Bamba. waa ji bu ñu ko nee ñurub ñarab gaynde nga xam ne li mu ko li xaa wàccu ko li billaahi. est-ce que gis nga dernière sortie bi mu def nee na seen aada muy muy wax rek nee na da koo bàyyee wax ji gis na ko mu génne jaan ba mu jàpp ko nee na bu ko jàppee. waaw mais jaan ko gis xam ne daa am dangar loo am dangar kenn du ko lekk waxu dof lay wax rek. bàyyi sëñ Bamba na ñëw rek yaru grande la quoi dañ koy jox cër bu moom. mais ndaamal daaro xam ne dina xam ne ñun ñooy goney farambacee cuku cuku naanaa dàq daw gën a gaaw duñ daw te ku daw ñu ree la barki maam Bamba billaay wallaay loolu mooy lan loolay li may kayee te ñembelee la fils de jëm ay xale yu ndaw billaahi waaw di nee na gars violence waaw parce que la quoi Grand Yoff ci ndakaaru la bokk xam nga di woote non à violence di sensibiliser supporters yëpp waaw mooy loolu sëñ Fallou rek aja genn ayca ayca Mansour ayca ay ci Mansour Baye Fall bi ñu ngi lay ziaré. dana ziar gaay waaw yaa naas kañ bilaay. tey dafa mel ne danga ne yeewu rek reetaan. bilaay walaay victoire xam nga rek bu waaw cin bu nee neex bu baxee day xeeñ. noonu demee rek waaw. waajtaay bi noo leen gisee mbër jamono bi. waaw kon ni ko lay indee rek. bilaay walaay aara moom xale neex na indi xam na neex na yóbbu làmba dañuy ñaan yàlla nag may ñu ndam loolu rek moo si des amul leneen. bilaay. mel ni supporters yi ñoom ñëpp pare nañu. waaw pare nañ ñun Zarko suñu grand la. mais dañu woo gars yi nag si non à la violence xam nga Grand benn la Médina gars yi ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lamb benn 20 minutes la rek amul leneen rek. wax nga ko sànq non à la violence ngay woote bëgg leen mu am benn violence mais ki ngeen di bëral ndaanaan la ci biir ndaanaan yi Zarko. waaw ndaanaan la ay bu jàppee xelem. la ki la jiitu si néeg bu lëndëm moo lay wax ni ngay toogee. Ada Fass tamit ndaanaan la ay ndaanaan la ko wër mais barki sëñ Bamba bu xam ne. kaas bi benn kaas la Ada moo ko naan. moo koy naan. Ada Fass moo naan kaas bi moom suñu grand ñu jox rek ñu dem. alors ah. dem Italie immigré yi yaa ma dem immigré yi. mais ci kanam lépp dina leer. arbitre bi la ñuy xaar doo ko wool mu sifflé. billaay. ay ca mbaga noona ñu continuer ñu continuer dugg ci biir ñu continuer ci biir ñu continuer ñu dugg ci biir mel na nii. Mansour xale baa ngi noonu ñu bind ndakaaru ca kaw bind abakara ca côté ba mu yenu benn leket leket ba maa nga gis ñu def ci ay seetu def ci ay petaaw wërale ko ak morceau bu xonq am na yeneen ñetti foto yu nekk ci suuf Mansour waaw waaw ñu bind ca suuf Ada Fass Ada Ndakaaroo ngi noonu xale yi nee mooy neex a faral dimanche cey loolu waaw borom jaan yaa ngi moo sol mbaxana Baay Ñas bi cey cey jaan cey jaan